Euh, Mass directeur général de la Sonaged SA. Euh, Permettez-moi d'abord de remercier Monsieur le maire, euh, Monsieur le sous-préfet et l'ensemble des membres du conseil municipal et aussi les autorités, délégués de quartier et autorités, autres autorités que nous avons eu l'opportunité de trouver aujourd'hui au niveau de la commune de Diaksao, Diamagen Diaksao. Euh, C'était vraiment, Tiwawan Diaksao, excusez-moi. C'était l'occasion pour nous de venir euh, dans la suite des activités mensuelles du Bessoub Setal. le choix de cette commune a été fait par les autorités compétentes en la matière, Monsieur le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, M. Abdoulaye Sow, qui nous a demandé de venir le, le représenter dans cette commune d'arrondissement. Donc nous avons fait le tour de l'ensemble des problèmes liés à la gestion des déchets au niveau de certains sites de la commune, notamment les bassins de rétention, où on a pu constater des problèmes aussi bien solides que Mais euh, étant entendu que nous avons une convention avec l'ONAS qui est en charge des déchets liquides, nous allons essayer d'intégrer la remise à niveau de ces bassins de rétention dans cette euh, convention en mutualisant les moyens de l'UCG et ceux de l'ONAS. Maintenant, pour revenir nous à notre cœur de métier qui est la gestion des déchets, nous avons pu constater quelques problèmes euh, dans les environs immédiats de ces bassins de rétention. Donc nous avons pris la décision dès le début de la semaine prochaine de revoir un peu le système de gestion de déchets en mettant à la disposition des populations des bacs à ordures, mais dans un style aménagé, ce qu'on appelle chez nous des points de propreté, qui vont représenter des, des espaces verts munis de réceptacles de collecte de déchets, surveillés aussi euh, par des jeunes qui ont été recrutés dans le cadre du programme Réunawi, en plus de caisses qu'on va prédisposer notamment pour la Tabaski qui s'en vient pour nous assurer qu'il n'y aura pas de dépôt de déchets dans les abords ou en tout cas à l'intérieur des bassins de rétention, chose qu'on a pu constater ce matin. Donc les engagements, c'est que dès lundi matin, on va déployer une équipe de 50 agents qui vont déjà nettoyer l'ensemble de ces canaux à, ciel ouvert qu'on a pu euh, rencontrer. On va aussi discuter pour inclure dans le plan d'action prioritaire de la coopération avec, on a ces bassins de rétention au niveau de Djamagun, je pense Médina, Marraine et aussi Ndiago Bar, on va les inclure dans ce partenariat-là parce qu'on est dans la phase de définition du plan d'action d'urgence avec ONAS. En plus de ces équipements dont j'ai déjà parlé, les bacs et les points de propreté qui seront mis en place. Et les eaux Bon, vous savez, ce n'est pas de compétence, mais euh, il a une convergence parce que ce qu'on a remarqué, c'est que ces réceptacles d'eau qu'on aussi des déchets solides. Donc on est bien obligé d'entrer dans un dialogue avec ONAS Mais la réalité, c'est que tant que les gens n'auront pas suffisamment de réceptacles pour y mettre les déchets, ils seront dans l'obligation de le déposer dans ces canaux à ciel ouvert. C'est vrai qu'on peut jeter l'anathème sur les populations en disant que c'est un problème de, de, sensibilisation ou en tout cas d'éducation environnementale, mais il est quand même de notre responsabilité de maximiser les dépotoirs d'ordures pour permettre aux populations d'y déposer les déchets. Et ça nous interpelle encore plus dans notre responsabilité et nous avons pris des engagements, en particulier pour cette commune, pour améliorer la dotation en mobilier urbain, mais on n'en aura jamais assez parce que c'est les mêmes contraintes qu'il y a au niveau de l'ensemble des communes du Sénégal. La quintessence de cette journée ben, Toujours euh, la réinscrire dans le contexte du Bessoub Sepal, euh, qui se veut citoyen. Donc vous avez vu qu'il n'y a pas eu euh, quasiment pas d'aspect festif, c'était vraiment une visite de travail où on a visité des, des points difficiles au pas de course Or, historiquement, peut-être qu'on voyait plus l'aspect festif avec nos frères euh, politiciens. Donc ça nous ramène vraiment, encore une fois, à notre responsabilité parce que le Bessoub Setal nous interpelle chacun en tant que citoyen en vue de promouvoir une nouvelle culture environnementale et on est au cœur de ça. En plus de la nécessité d'aller vers des plans d'action précis, euh, j'étais très content de voir Monsieur le sous-préfet demander à sa suite qu'on note tous les engagements qui étaient en train d'être pris par les différentes parties, ce qui signifie que c'est un travail sérieux et nous voulons qu'il y ait des retombées pour plus d'efficacité dans l'action gouvernementale à travers les services que nous incarnons. ma déjà monsieur le maire de la commune de Diamaguène euh, Tivaouane Tivaouane Diacksao nga baal monsieur le maire mi nga xam ni moo ñu fi dalal tey ak euh, wàllum mboolem conseil municipaux yi mu àndal délégué de quartier yi ak responsable yi nga xam ni yëpp lañ fi fekk ñu àndandoo ak ñun nag ci li nga xam ni bésub setal moo ko sabab léegi suñu ministre jël décision ni fi nga xam ni fa la ñu waree defee bésub setal bi comme point particulier mois bi ñu nekk ni ñu dànkal ñu ñu dénk ko commune bi monsieur le maire choisir circuit bi ñu ñëw ànd ak moom def circuit bi xool jafe-jafe yi nga xam ne moom la population yi am ci wàllu gestion des déchets mais aussi lu ci bëri nekkoon na ci ay wàllu déchets liquide te dañu nekk si jamono boo xam ne muy waaja taw donc loolu tam itteel na population yi moo tax euh, ma xamal ko ni ñun am na convention bu ñu xaatim ak ONAS mi nga xam ne moo yore wàllu déchets solides yi te dinañ fexe ba gestion wu problème yi am fii nga xam ne dafa lëkkaloo problème wu déchets solides ak liquide ñu boole leen ci phase d'urgence boobu ngir ñu mën ci indi ay saafara bu ñun li nga xam ne mooy suñu liggéey mooy wàllu jëm ci wàllu mbalit mi xool nañu aussi jafe-jafe yi nga am te jël nañu ay engagement lu mel ni altine incha allah dinañ fi déployer ay équipe pour def benn curage benn canal bu nekk ci proximité autoroute à péage bi pour éviter aussi que ëllëg si biir nit ñi di continuer di fa yóbbu ay ay mbalit parce que jàpp nañ ni tant que nit ñi ñi ngi am jafe-jafe amuñu ay bac à ordure wala point yoo xam ne mën nañ fa def mbalit bi xëy na bu oto bi tardé wee dañ koy jël di ko dugal ci ci canaux à ciel ouvert yi donc nañ góorgóorlu pour mettre en place aussi ay bac à ordure ak ay point de propreté suñu coordonnatrice bi nekk fii maam jaara dina ci jéem a def ay jéego def ci une étude pour ñu implanter quelques points mais li nga xam ni moo gën a urgent mooy tabaski bi di ñëw te bëgguñu aussi nit ñi di ay xaru tabaski wala ay reste de déchets di ko sànni ci canaux yi wala ci euh, bac de yi incha allah dinañu def benn dispositif boo xam ne ay caisse lay nekk yoo xam ne dañ koy dédié spécialement ci tabaski bi bu loolu weesoo nag ñu xool ban système de pérennisation la ñuy teg lu demee ni béréb bi nga xam ne moom lañ taxaw ngeen gis ni benn exutoire ou bassin de rétention la mais nit ñi dañuy ñëw di yéeg ci kaw di tuur mbalit bi donc fii il faut ñu tef fi benn dispositif de captation pour éviter que nit ñi di tuur mbalit ci biir euh, bassin bi di ñaax aussi yi ba nga xam ni dispositif yooyu buñ ko tegee ñoom ñu utiliser ko te bañ jël mbalit yi di ko dugal ci bassin yi ak yooyu parce que dafay indi yeneen jafe defee ci askan bi merci beaucoup